di beral ab nuyoo sëñ Maramata Silla ci bis bu am solo bi di ko ci ñaanal yàlla sunu borom dajale ko ci ngërëmul sëriñ bi te defal na ko sëriñ Papa Gueye noo ngi lay nuyu bu baax di la siyaara bu baax di am mbégte ci jataay bi ak Cheikh Abdul Karim Lo sunu wëlëre alxaaji Ayuba Lo ñoom moom it noo ngi koy jox ab ziar te di ko jaajëfal bu baax a baax di yóbbante nuyoo nag ci sëriñ mahmoudan moom cheikh mahamadul murtada xaadimu rasul boroom taxawaay bu rafet bu mat boobu nga xam ne diine ji jëmu ko ak bokk jëmu ko yoonu murit jëmu ko yal na yàlla guddal fanam defal ko bëggam ci sëriñ bi barke xaadimu rasul di nuyu bokk yu baax yi nga xam ne it ñu ngi bàyyikoo ci ay jataay yu wuute ñëw fekke sibis bi di leen balu xaq yit di leen jéggulu it e, njuumte yi dox suñ diggante yéen ci weer wii nu génn dañ baaxoo di ci balonte ak muy cheikhu ramadanul mubarak noo ngi leen di eh, jéggulu sëñ Cheikh Maguèye noo ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay yow it di la delloo ñaan yi ngay ñaan yàlla nu ko yàlla boole defal alhamdulilah noo ngi sant yàlla mi nu defal tawféex defal nu ndimbal ba ñu dellu siwaat ci jataay bii muy jataayu diine jataayu lislaam jataayu cheikhul xadim defe naa jataay bi ay waxtaan yu baree bari jaar na fi te loolu lépp taxawaayu sëriñ bi ci lislaam taxawaayam ci doomu aadama taxawaayam ci ab société taxawaay yu baree bari ci seexul xadim Euh, tey it ñu tànn ci benn tomb boo xam ne day jëm ci cofeel gi war a dox diggante jaam bi ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam xool ca nag ban taxawaay la ca Cheikhul Xadim am yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñépp ko bokk yonent bi alayhi salaatu salaam mooy kilifa ak ñëpp bu ñu xoolee Serigne Touba nag dana nu fekk bu baax a baax mu leeral nu yonent bi leeral ñu cofeel gi dox digganteem ak alayhi salaatu salaam te bëgg ko moom sallallahu alayhi wa dañuy wax ne mooy ngëneel mooy tedd nga. mooy wàccuwaay bi nga xam ne it mooy sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñee way jëkkalante yépp ca la ñu daw jëm ndax mooy xuutul quluba gidaawul arwah wa quratul uyun wa hiya alxayaat allati man xaramaha foo min jumlati al amwaat mooy xol ci boppam bëgg yonent bi moo koy dundal mooy dundal ruux mooy dalal it am xel képp koo xam ne amuloo ko dañ lay lim ca way deeya mooy leer gi nga xam ne it ku ko ñàkk dangay ngay bi ci géejug lëndëm te yonent bi alayhi salaatu salaam bi ak gëmam mënta mat lu dul yonent bi gënal ko léppam ni ko Abu Hurayra waxe ci yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laa yuminu ahadukum ata akuna ahabu ilayhi min waladihi wa walidi wa ahlihi wa maali wa naas ajmain yonent bi alayhi salaatu salaam nee na kenn ci yéen gëm gim gëm yàlla du mat lu dul man yonent bi ma gënal ko boppam gënal ko ay way juróom gënal koy doomam gënal ko jabootam gënal ko alalam gënal ko nit ñépp kon balaa sa imaana mat sa xol yonent bi alayhi salaam da ci fees dell ba gënal la ñépp loolu moo taxoon it ku ñuy wax sayduna ali ibnu abi talib daana ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa ahabu ilayna min wa awlaadina wa abaina wa ummahatina wa min alma il baridi ala zama yonent bi sallallahu alayhi wa moo nu gënal suñuy alal gënal nu suñuy doom gënal nu suñuy baay gënal nu suñuy ndey wax de bëgg gin bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam neexit wi mu ngi yegg ci bu nit maroon ba ay tuñam wow ak puutam wow ñu jox ko ndox mu sedd mu neex muy naan waxtu wi mu koy yëg bànneexub naan gi muy yëg bëgg gin bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam mu daq loolo yonent bi alayhi salaat salaam nag ñoñam dañu ko sopp bëgg goo xam ne mel na misaal mosu ne mel ku ñuy wax abu sufyaan xar bu nee na ku ñuy wax zeyd dafa am lu mas a def ñu ne ko waa yow lii nga def ba ñu war laa rey ndax bu amoon ku jaar fee rek dóor jësi yonent bi sallallahu alayhi te nga mucc ndax danga ko nangu zeyd na ko déedéet duma bëgg dara dal yonent bi alayhi salaatu wasalaam man ma nekk sama njaboot di toog ca la abu sufyaan waxe woon ne maa raaytu ahadan min annaasi yuhibu ahada ko xubbi ashaabi muhammadin muhammada musumaa gis mukk kun bëggee ni saxaaba yi bëggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne nag dafa amul genn benn xol boo xam ne dana dund ci lu dul sopp yonent bi sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy dinaamo bi taal xolub jullit mooy ndox mi koy arrosé mooy leer gi koy wommat muy bëgg alayhi salatu wasalaam ñu ne dafa am ci ab xol benn tooxa énergie boo xam ne dara mënu ko jañ lu dul bëgg yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ku yàlla defalu tawféex jooju nga bëgg rasulaay salaahu salaam dañuy wax ne kooku dundam gépp ak lëndëm la alkande njaqare la xumumun wa alaamun wa xasaraatun ñu ne kon manzila bii nag benn jaam lu ca yegg lu dul jaar ca yoon wa koy wammat ngir mu mën caa egg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xol bi ko jaam bi bëgg te bu suñ borom nammee ci jaam bi ngëneel day def ci biir xolam mu bëgg salaa alayhi wasallam moo tax Sëriñ Tuubaa doon wax ne rabiha suu tijaratin qad tajarra bi hubbi shafiin ada alfajara képp koo xam ne yaa ngi yaxantu te sa marchandise di bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa na doo perte kon bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mooy mucc loolu moo tax nag bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag dafa am lu koy tegtale mooy topp ko dundal sunnaam jikkowoo ci ay jikkoom looloo tax yàlla da koy bijji ab xol jëme ci ab jaam mu war caa sant boroomam ni Sëriñ Tuubaa waxee ne xamidtu ilaahi bi shukrin lahu ala jaf bi qalbi li xubbi nasix maa ngi sant yàlla lu tax ma di ko sant mooy bijj gi mu sama xol ba ma bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam ci lay sante boroom bi subhaanahu wa yonent bi sallallahu alayhi dañuy wax ne alaamatu xubbul abdi lillah azza wa jalla itibaa mardatillah wa tamasuk bi sunnani rasuli sallallahu alayhi wa sallam liy tegtale jaam bi ci ak bëggam yàlla wala bëggam yonent bi alayhi salatu salaam mooy topp la yàlla gërëm waaye jaare ko ci sunnas Mustafa sallallahu alayhi bu loola amee nag day suuxat ci moom garabu cofeel goo xam ne wàngaas ya day génn ci cër ya mu mën a sawar ci topp yàlla ndax leeru yonent bu nekkee sa xol daf lay sawarloo ci topp borom bi ci dungu koo jaamu dafay leeral sa xol ci jëm ci lu baax ndax garab googu sax ci sa xol mooy def wàngaas yoo xam ne benn bu ci nekk day jëm ci benn béréb yonent boobu alayhi salaatu wasalaam nag euh, bëgg gi mooy topp ko borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa rasula wa atiu llaha wa rasula laalakum turhamun yéen nit ñi topp leen yàlla toppub yonentam topp leen yàlla toppub yonentam xaj na dees na leen yërëm yonenti boobu alayhi salaatu wasalaam nag nit ki mënul tabbi àjjana mukk bu fekkee ne won na ginnaaw jub gi mu indi ak baax gi mu indi moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne xaraamun ala man hudaahu aba duxulu jinaanin daxilan tarix wa man lam yalij nahjahu yuntazar bi xullin thaqilin wa naarin la foox Sëriñ Tuubaa nee na bëgg tabbi àjjana te doo jaar ci lu yonent bi alayhi salaatu wa nee na loolu moom daa araam te ki nanguwul a jaar ci jubug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am na lu koy xaar ëllëg ay ceen yu mën a lëg ca biir sawara moo koy xaar moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ko mel ni ibnu ataa mu ne man alzama nafsahu adaba sunna nawara allah qalbahu bi nuuril maarifa wala maqama ashraf min maqami mutabaati alhabib fi awamirihi wa nawahihi wa afaalihi fi aqwalihi ñu ne bu fekkee ne ab jaam day amul lenn lu gën a rëy ci moom mu taqoo teggi ni sunna ci topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir ay waxam ci biir ay jëfam ci biir ay meloom ci biir doxinam yoo xam ne doxin yu sell lay doon loolu mu tax borom bi subhaanahu wa taala jël ak toppam toftale ko ci topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne mënee su ta topp yàlla te jaare woo ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam looloo tax nag ki jóg topp yàlla jaare ko ci yonent bi moo jaar ci yoon wa dëgg dëgg dëgg dëgg loolu it moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kon bëgg gi ngeen may bëgg ak sopp gi ngeen di sopp mooy bëgg gi ngeen di bëgg yàlla ak sopp gi ngeen di sopp borom bi subhaanahu wa taala te ki topp yàlla topp yonent bi bu ëllëgee moog nabiyyiin ak siddiqiin ak shuhadaa ak saalihiin yi ñooy bokk benn wàccuwaay bu ni nekk ëllëg te loolu topp yonent bi alayhi salaatu salaam moo koy may ab jaam loolu it moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa nag cofeel googu jaam bi war a am ci moom suñ boroom waxee ne fa aminu billahi wa rasuli nabi lumi allazi yuminu billahi wa kalimati wattabau laalakum toxtaduun ñu ne mooy siraatul mustaqim yàlla def yaakaaram bi ak jub te jeexintal nga jëm ci iman bi rasul tibaahi ci melawoowu jàmm bi taqoo ci shariaam te moytandiku la ca des te moo di ak réer yàlla wax ne fa aminu billahi wa rasuli wa nuuru lazi anzalnaahu wa man lam yumin billahi wa rasulihi fa inna aadadna lilkafirina saira nga xam ne ki nungu la topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg a fetteerlu ak payam ëllëg mooy tàbbi sawara moo tax si Sëriñ Tuubaa di wax ne man sarrahu nayla almaraaxibi kulliha fal yaqtafi almahmuda niama saaria képp koo xam ne bëgg naa am li muy sàkku bëgg am li muy wut na roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa laazimu diina nabi almushafaa alayhi xayru salawaati l anfa fi alihi wa sahbihi maa salaam fa innahu lkaafi l adabu walmalaam Sëriñ Tuubaa nee liy fekk gàcce ëllëg tey dox diggante jaam beeg sawara ëllëg mooy topp ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa duumu ala xubbil ilahi wa xubbi man baada alqada ila aljinaani yusaria Sëriñ Tuubaa nee na da ngeen sax ci bëgg yàlla ak bëgg rasulaay mi nga xam ne bu yowmal xiyaamee bu yàlla attee jaam ña moo am danaan caw rek wuti aljanna nga xam ne ajjana taraanga la joo xam ne yàllaa ko waajal jaam ñi waaye kenn du dugg ci benn buntub ajjana te du rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëkk tabbi awwalu man yaqra baabal janna ahmaduna al muxtaar muhyi sunna sëñ Tuubaa nee na kay jëkk a fëgg buntub ajjana mu ubbeeku mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa loolu it wax na ca leneen lu doy waar na sabaxtu xayri ilal jinaani maa nabiyil xurashil adnaani sëñ Tuba nee na ku dul rasulullahi maa lay jiitu àjjana ndax bu tabbee maa ca topp sabaxtu xayri ilal jinaani moom kenn du ko waxal ay tatoneeka lijjanti ñu di ko lijjanti waat déedéet déedéet mbind mu ne wat leer nañ sabaxtu xayri ilal jinaani ma an nabiyil xurayshil adnaani sëñ Tuubaa nee na bu rasulaay tabbee rek maa coy topp ku dut alayhi salaatu wasalaam maa lay jëkk tabbe ajam kon loolu lan la jàngale te mbind ma aw doxiina ma moo tax mu wax ne wa mimma yujibu dawq taamul iman ridaka billahi rabban wa bil islaami diina wa bi sayidina muhammadi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa wa baraka rasulullah sëñ Tuubaa nee na bokk na ci li tax jaam bi mus caf nga gëm yàlla mooy mu gërëm yàlla muy boroomam def lislaam di diineem def yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu di ab yonentam moo tax mu ne man sarrahu an la yazaalu mukarrama fal yuxbibul muxtaari ni'mal baaria koo xam ne bëgg nga di sax ci tedd nga te doo tedd di mukk doo doye di mukk sañ Tuubaa na na ngay roy nanga bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag boroom xam-xam yi seddale nañ ko ci lu baree bari waaye ñu ne am na ay màndarga yuy tegtale ci jaam bi luy wane ne bëgg na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne boo bëggee yonent bi nag danga koy roy jël diine muy sa diine di ay jikkoom ak i meloom loolu moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne diini ilal jannati l islaamu wa ala diina siwaahu wa da nasun min allah sama diine mooy diine lislaam bu ma kenn adressé man Cheikhul Xadim ci genn diine judul diine lislaam diine lislaam lay sukkandikoo diiney lislaam ci la jaar dal wax ne laqad tabayyana li kulli dihtidaa an abna abdallahi xayru muqtadaa kullul wara yaxbitu nii fiihi gadaa wal yawmu daa amnin yajuru ragadaa sëñ Tuubaa na képp ko am ak jub te xàmmee xam na ne ki gën ci kin war roy mooy yonent bi alayhi salaatu daal da nag ñëpp a ma ciy ñee ëllëg kullul bi tu nii fiihi gada sëñ Tuubaa ne na bu ñu demee yowmal xiyaam ñëpp a may ñee ci rasulullaay waaye ndax yowmal xiyaam lay yem mu ne wal yawma da am nin ya jurru ragada tey yii sax lañ may tàmbalee ñee ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ñee ko tàmbalee ñee ci yonente bi alayhi salatu salaam dafay lu leer xam ngeen ne tudd tur teg ca rasulullah woowu dakkantal sëriñ Tuubaa ku ko am taaju nangam am na fardu nangam am na xutbu nangam am na waaye xaadimu rasul moom tudd sëriñ bi teg ca yonent bi alayhi salaatu salaam dakkantala ma te jeex gi jeex ci alayhi salaatu salaam ci bëgg ko guddeeg bëccëgam looloo tax tey jii bu ne xaadimu rasul kenn du ko xëccoo kenn du ko jëkkalante dañuy xam ne sëriñ ba rekk ko moom mulkul alil baaqil qadim jaalani asnal qadim mi man lahu fadlun yadum wasaadani an xidami kon yàlla ci boppam moo ko tànnal boppam def ko muy asnal xadiim ci bëgg gi mu bëgg yonent bi alayhi salaam defe naa jàngkati xadis yi gis nañu yonent bi wax ci xadis boo xam ne dane dana am ñoñ ëllëg dana ñëw sama gannaaw duñ fekke sama jamono waaye maa leen di gënal doom gënal leen alal gënal leen seeni jëmm gënal leen seen lépp bokk na ci seeni màndarga ëllëg lu ñuy wax tuubaa defe naa bëggkati yonent bi alayhi salaatu salaam nag lu baree bari la waaye wuute gi ak Serigne Touba melo yu bari la boo demee ci téere bu ñu tudd Mawaahibul Ladunniya wal Mazaaya Muhammadiya dañ ca tudd bunt bu tudd wujubu mahabbati rasul wa itibaa yi waru bëgg rasulullahi ak topp ay jeexintalam ñu la ciy tuddal ñoo xam ne bu ma saa dégg ñu tudd yonent bi dañuy jooy ba seeni bët di nàcc ndax bëgg rasulullahi sallallahu alayhi ñenn ñi dañuy jooy ba seeni xar kanam di soppiku ndax bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye gisagoo ci mbind ku eggagul ci fii sëñ tubaay yegg ci bëgg rasulullahi ba wax ne mahat mahabati al muxtaara sayidina hobbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada bëggatuma doom bëggatuma alal bëggatumay taalibe sama xol boo ko lambee kenn ngay fekk ca biir muy yëngu muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi nee na balaa balaa seenu gëm a mat dama leen di gënal seen ndey gënal leen seen baay gënal leen seen lépp sëñ Tuubaa dana jutt lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam saag ruu jox naa ko rasulullah saay jëmm jox naa ko rasulullah sama ndey sama baay saay doom jox naa ko rasulullah habawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila huluru ramsi kon dafa ramassé léppam yébbal ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bëgg gim bëgg yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xeela bëggatuma naari góor bëgguma wurus bëgguma xaalis bëggumay dëkkaale sama xol kenn ci nekk mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gi ma ko bëgg nag fan la ma yóbbu egg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu doonte dafa war a tawat nañ jël tawat ji teg ma ko ma tawatal ko man Serigne Touba bu deretam waree tuuru nañ tuur sama deret man Serigne Touba dammi fidaun li xuruji dammihi wa maradi fidaun li daa i jasadi sama deret mooy walangaan wuutu dara ci yonent bi sama alal mooy njotug yonent bi sama doom mooy njotug yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg yonent bi ba egg ci ne rasulullahi sallallahu salaam de bu ma ko séenoon mu taxaw di jëm du ma lang ak moom du ma dend ak moom duma ko jiitu du topp ci ginnaawam du dox ci wetam bu ma séenee Moustapha xam ne kii mooy rasulullah sëñ Tuubaa ne na ma koy terale sama lex bi lay laltaay ca suuf mu jël ndëggul tànkam la teg ko ca kaw sama lex ba ca des noonu lay defar rasulullahi sallallahu alayhi wasallam xaddi jaxaltuhu turaaba naalihi turaaba naalihi la wax yonent bi day sol dàll ba noppi ca ron dàll wa fa lay teg sab lex xaddi jaxaltuhu turaaba naalihi yaa laytani laxidani bi fadli waaye aka neexoon bu nee nit ca sama lex ba ba noppi buy jàll ma gëtam yu sell yee moom rasulaay gelmatu xool képp bu ma ko defee man li ma bëgg am naa ko man Cheikhul Khadim bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam ba egg ci ne bu ma tawatoon bu ma nit wutal saafara bul ma wutalub docteur toogal fi sama wet rek tudd rasulullahi ma wér man Ahmadou Bamba tuddal tur wi rek boo ko tuddee ma wér shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabb saa yoo ko tuddee rek ma wér yóbbu ma ci àll ba gën a sori boole maa ki gaynde boole maa ki ndeg men gisuma mbokk mu ma jege waaye ne laa ilaha illallah rek teg ci muhammadu rasulullah boo ko defee man wéttiliku naa ndax muhammadun dikruhu unsi wa mafrahati wa nuuru qalbi wa aadai wa raxaati sëñ Tuubaa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama leeru xol mooy sama wéttal samay cër li koy noppal mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg googu bëgg alayhi salaatu salaam nag tax na amatul lu muy bëgg amatul lu muy wut amatul lu muy sàkku lu dul alayhi salaatu salaam di guddeem alayhi salaatu salaam di bëccëgam te bëgg gi mu bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam jural ko ngëneeli biir ak ngëneeli bitti yoo xam ne moo waral mu xëy bàyyi këram bàyyi njabootam look noonu jamono ci wéet te dara waralu ko xam ngeen ne man zann ani li xayri la murtahilun aw li siwal Mustafa al Muxtaari fi safar bu leen jàpp mukk ne li ma taxoonu ub samay kër bàyyi fi sama njaboot bu ko kenn jàppee dara lu may bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa ak di ko liggéeyal moo tax mooy ci gën a bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne defe naa sëñ sàmbay rahmatullah ali wax na ko bu ñu xooloon xoli jàmm ñëpp sunu borom jeex na xoli jaam ñëpp fekk sëñ Tuubaa gën caa sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mën nga ko démontrer benn par benn bëgg rasulaay toog sa kër yomb na bëgg rasulaay di werante yomb na waaye xusuur yi xallat wal ahlu anni tafaraqat li maddaxi alladi anhu lmadihu xasiiru samay kër gent na amatuma kër saak njaboot taggoo nañ maa ngi ci loxoy noonu lu leen neex ñi dama def lu ko waral tagg rasulullaay bëgg ko rek te tagg wu ma natt ba jàpp ne jot na tagg woowa gàtt du ma bàyyi mukk te solo lu ma rasulaay mbubb yu sëmbartalu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo ko yóbbe xàmmeewul suukar xàmmeewul kaani xamatul bànneex sëñ Tuubaa xam ngeen ne bu daan suukar warga xamul suukar su saf da daan sotti jël xalima gi di ko yëngal ba muy liddiku ni laalo mu xam ne ndox baaxuwut a jàppo mu xam ne saf na mu door a xam ne saf na te loolu Cheikh Massamba Mbacké nee na am na bis mu xer ci kaas jox ma ba ma ko naanee na ko Mbacké saf na de mu ne ma man yàllaa ko yonenteem dama saf ba suukar safatuma man yàllaa ko yonenteem daf maa saf ba suukar safatuma kon bëgg yonent bi salaahu salaam moo far ci xolam bëgg lépp la ko waykat ba ndaa baxal bu ko xubbul xibbiya sanada fa xubba xibbika yamxu soxol yow cheikhul xadim rasulullahi rek la ciy fekk ku làmb soxol yow cheikhul amu ca benn wàccuwaay bu ca doom am wala alal walay taalibe waaye ku làmb soxol ma ngi cay fekk bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallama ci say guddi waaye bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallama ci say bëccëg bëgg googu mu bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam it firndeel ko ci biir ay meloom ak i jëfam ak doxiini boppam wax ne wasilati wa junnati wa jannati faridati naafilati wa sunnati sayidina shafiana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam samadi sama kerkeraan sama àjjana sama pakk samay farata ak samay naafila ak samay sunna mooy yonent bi alayhi salaatu salaam yonent boobu nga xam ne nag waxtu wu nekk sama cofeel ci moom day gën a dëgër te dara du ko soppi ci melow biir dara du ko soppi ci melaw bitti ndax am gi ma am sopp ci moom ñu ne waaw sopp yonent bi de yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man ahya sunnati faxat nii wa man ahabbani kaana maan fil janna li ngay xame ne sëñ Tuubaa léppam day dellu ci rasulullah yonent bi moo ne ku dundal sama sunna kooku moo ma bëgg te ku ma bëgg maak yow ñooy bokk tabbi àjjana ëllëg waaw sëñ bi mu ñëwee du moo déclaré lil Mustafa nawaytu may jaddidu sunnatahu lxora wa inni ahmadu nadafatuhu kulli min al lahwi wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu kon moom moo annoncé sene dinaa ñëw man Serigne Touba ngir yeesal sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam yeesal gi muy yeesal sunna nag day tegtale bëgg yonent bi dafa roy yonent bi alayhi salaatu salaam ci biir roy ko ci bitti sëñ Touba jëful dara lu wuutooy ak li rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jëf ab tool nag bu ñu la ca dooñee wetu penku ga te demoo ca saw bul ne tool bi amuti ëkk buñ la dooñee ci wetu saw ga te dooñu ci wetu penk ga bul ne bul tool bi amul ay janj bul ne tool bi nangam wet gi nga ci féete fexe koo bay ba mu set la nga xamul ca tool ba nga mandu ca ndax toolub lislaam ba lislaam di lislaam wàcc ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ku wër tool bi ba xam li ci nekk bay ko ba mu yegg nga sapp gopp bi ci dikk bi yàlla na la jërëjëf ku dul Cheikh Amadou Bamba mosoo ko def toolub lislaam laa la wax de ñii dañu leen a dooñ ci wetu penku gi bay nañu ko di jàmbaar ñii wetu sawu gi bay nañu ko di jàmbaar ñii tàmbali dee dab leen ñii tàmbali seeni noon gàllankoor leen sëñ Tuubaa ñëw na sëpp ci tool bi na bala maa bay dooñ win ma dooñ day bay ñii fi bàyyi woon seeni dooñ te yëggul bay seeni dooñ ba mu set yàlla na ko pay gi ma leen waroon a joxal ngi nii mu ne ko joxal ma leen ndax ñoom laa ko doon jëfal ñooña na ko jaajëf jërëjëf joo dégg sëñ Tuubaa ne diw wax na ma ko lu mu ko defal a tax merci kenn du ko waxul ku la defal dara dañuy tëb rek naan diw gërëm na sëñ Tuubaa gërëm na sëñ Tuubaa loo ko defal lu ko sëñ bi defal radiya ani sibtuhul jilaani radiya ani sibtu tijaani radiya sibtu abul hasan lan la leen sëñ Tuubaa defal jamononte wun ba nopp ñu ne ko jaajëf lan la leen defal la leen sëñ Tuubaa defal tool bii di lislaam ñu sas ca ku new dooñ ñii tàmbali dee dab leen ñii am gàllankoor la sëñ tubaab bay bi mu ñëwee dana càpp dooñ wu mën a doon mashaayixi sayduna jilaani wa shaasali yu maaw tijaani fekk naa fi abdul xaadir jilaani di bay fekk fa shaasali yi di bay fekk fa ama tijaani shérif yi di bay du bay sama dooñu bopp te bayuma seenu tool ba mu set loolu moo waral mu yor wirdu xaadir yi yor wirdu tijaani yor wirdu shaasali yi sëñ Tuubaa mu su ko jam bu opposé woon li fi ne ñu mën a wax lu waaye yor suñ tubaa nongul na la ko téyelee la ko ànd ci ak yow yor na wirdu xaadir juróom-ñetti at wirdu tijaar juróom-ñetti at wirdu saasili juróom-ñetti at wax ne ñii samay kilifa lañ ci wi yoon ba yàlla na ko jëlal sa yëfi bopp li ñu waroon a bay bay nañ ko sëñ bay naa ko yàlla ma kon kat abdul xaadir jaylaani ñëw na fi gërëm la saasili ñëw na fi gërëm la tijaan yi ñëw na fi gërëm la saxaaba yi gërëm nañ la gërëm naa la yool yi jëlal sëñ bi ne ko déedéet bi ma koy bay seeni jëm a tax delloo leen ñu dellu na ko jërëjëf kon ñoo ñooñu mu bàyyil seeni sas ba mu mat ñu gërëm ko nag mu door na capp nag gopp boppam nag ci toolu toolub lislaam nag am yéene bay bopp bayal boppam nag tool yooyu bi mu ko bayee ba nopp bëgg a bay toolam ceddo bi taxaw wóor yi taxaw yàqkat yi taxaw na ko tool bi du fi bayoo des na la gàllankoor ci bay mu ne ñokket fas yéene bàyyi lislaam tool boo xam ne dana set wicc ndax nan la koy bàyyee nifaali wa ibghaa'i wa fawsi bila anan bi kawni xadiimal Mustafa tatabayyanu ba ñu ma dem ba jeex ci takk faagaagalu ba ñu ma dem ba ñàkk ci lépp man Ahmadou Bamba waaye lislaam daal dana yëkkatiku tool bi dana yëkkati ku sunna si rasulullahi dana yëkkati sëñ Tuubaa jàmmaarloog ñeenti noonu yi gën a aay kenn ki tudd bànneex kenn ki tudd bakkan kenn ki tudd seytaane kenn ki tudd adduna ku mucc ci yaar fexe ñaar gàllankoor la ku mucc ci ñett benn gàllankoor la ku mucc ci ñaar nangam leneen gàllankoor la sëñ Tuubaa na bërit bakkan na man day reggale ku ma reggal nga bajantu sëñ Tuubaa di saxoo koor muy nafsu seytaane na ku sàggan rek laay xaar boo ñàkkee tudd yàlla ma songu say mbir sëñ Tuubaa saxoo sikar di tudd boroomam guddeem di tudd boroomam bëccëgam alaylu fii qaaimu nahaaruhu saaimu wa dikru daaimu bu guddee bu nit ñi nelaw ci lal yi di yandoor sëñ Tuubaa taxaw di naafila sëñ Tuubaa amut lal amut lal sëñ Tuubaa amut lal la ma waxoon ne ku am poos sëñ Tuubaa la gën ku am lal sëñ bee la gën koy nettali taarixam ba ne lal bii ci la daan dalloo sëñ bee ko gën ku am poos moo la gën kuy tëdd di nelaw moo la gën kuy dox di bi ci say loxo moo la gën kuy noppalu moo la gën kuy een moo la gën kuy parparloo moo la gën kuy werante moo la gën kuy def anaaniya moo la gën ko jañe ñëpp séddale mooy ku baax mooy sëñ Tuubaa bérut xajjaloo wut séddaloo wut irham jami alwara ñëpp a ca bokk tànn lut kenn genn wet gooy jëm kët ñëpp la ci boole ku ca génne sa bopp yaa ko ca génne waaye génnewu ca kent ci rasulaay la ko jëme bam ne càppul tool bi na danaa ko bay nag ya koy gàllankoor na du fi bayoo daal di jóg wax naa la bakkan wax la bànneex mooy wax ju bari ju njariñ mu féete woon noppi wax la adduna mi nga xam ne ku jóg mu jay la sañ tubaat tontu ko ca xasida ga tudd ab miimiya fa nafsu wal xalqu wa sheytaanu qad faragu min xasdi durriya lii duna taxat salama maa siltu ab xiiri daa man qaddamal fudala not bakkan not bànneex not seytaane ak adduna moom Serigne Touba joggi ko nga xam ne kon not gi mu not yooyu nag mu des nooni nit nooni nit te moo di tubaab bi ak ceddo yi ak sëriñ ci laqatu tey laqatu waaw laqatu dafa am lépp dafay nekk di laqatu boo demoon ci complication yi ñi jaxase sëñ bi ñu ci bari ci réew mi lañ nekkoon loolu leer na nañ moo tax sëñ Touba détails yii ñu bëgg dugg nañ ne ko tegg ci suuf man de xaw ma ndar 84 fa demoon xaw ma 22 xaw ma 65 waaye 4 moom kenn la bu dee dañ ko doon woote par kenn it ñi jëkk dem ban numéro la ñu am ba sëñ bi demee ba ñëwit ñi ci des ban numéro la ñu am ginnaaw doonuñu woon 84 lañ doonoon ci lim ku cay 30 bokk ku fa doon gannaaw dem gi moom nangu nañ ne am na carte d'identité confirmé ginnaaw dem gi am na rek teyit ndar moom li ngay xamee ne am na moom moo bindal boppam ca jasaawu shakuur xaraj ci yow ma sabt rabi asar ama jëy sachin min bayti lasi banaytuha fi ardi jolof baadama atani barawatu amayri ndari lasi jara bayni ma bay ma jara baynahu min alqadar wa laqitu wasirahu fi mawdiin yuqaali jeewali sëñ bi ko bind amiru ndar bu ndar amutoon du ne amiru ndar daje gi bi amutoon du ne jeewal ba mu ca ndar inna allazi maha isa atan ndar yi ba mu toon ndar amul laxat axamta bi ndar xiinan tasili biha daa addalaali min ahli shakki wal fanadi ba mu toon ndar amul ak leer bu ñu dugg ci yooyu détail amul njariñ amul njariñ léegi ndar amul xawaariquhu yakfika min aarujuhu ala xayra xaalin bax dama rakibal baxra benn naar bu nekk ca gànnaar nee na waaw léegi nangu naa yooyu yëpp amul waaye dem ci géej gi ñibbi si waat sa kaala dañu sooxoo woon la nga doon woote na càppaa coli jàngi xanaa nangu ngeen ko waaw léegi tubaab bi dañoo jékki-jékki rek mépp suñ tubaab na ko wéyal ndar wala demal ci géej gi li ma dégg jàngkat yi naan la mu wax ba dem géej ku ko waxoon dem géej kon moom dong nga ko wax dem kon xawaarixu yag fi ka min arujuu ala xayra xaalin bax dama rakibal baxra loolu du détail lan mooy mbir mi mooy sëñ Tuubaa dafa ñëw ngir sobe lislaam ni mu jàkkaarloog bakkan ak bànneex ak àdduna ak seytaane noonu la jàmmaarloog noon yi nga xam ne danoo ñëw bari bëgg a faagagal lislaam sëñ Tuubaa bëgg ko rek a war sëñ Tuubaa wóolu ko rek a war sëñ Tuubaa sopp ko rek a war sëñ Tuubaa yërëm ko rek a war sëñ Tuubaa li mu daj ci àdduna bu doonte ne bànneex képp a tax wala lu ko mbooloo di toppee baa bëggi kër baa bëggub siyaare du jar bii coono bi mu amagul ñeent fukki at lañ ko jox xut bu zamaan bi ñu koy jox na si bakkani jaam ñi fukki at ak ñett lam boobu mamar qaadi mamar kan qaadi mamar kan jihaadal na Cheikh Omar Fuuti Tall yàgg bam naan ko inal quruuna bila sunya asimatihim fii raaxatay ki leen xaw maan xaadu hada la ahmada bamba kaana walidahu bahrul ulumi namiril maai mawruda fukki at ak la am mamar qaadi mii daa di wax ne yàlla bënd na bakkani jaam ñépp jël nos yi teg ci loxol xale lii di ahmadou bamba mës sa dëkk ci tabax baraag yi gën a tàng ci la daan dëkk bu yàlla si masaa taw day wal ci biir këram gi ci njaareem muy meeblu téere yi di wut fu mu koy teg muusug ndox gu sedd naanu ko ci lim liggéey jàmm jëpp sëñ bee ba noppi moom bi coono bi ñëwee mooma ay waaye ku ko mënta gërëm it man koo bañ a diir mbagg na dafa liggéeyal woon yàlla liggéeyal rasulullah te kilifa gu fi nekk sëñ Tuubaa nungul na la li nga am genn kilifa gu amug wilaaya it gu dingat sëñ Tuubaa amul ñi ci quartier gi xamante nañ doosi xam nañ commandant yi xam général yi xam naa wallahi alazim doo gis benn wali yu dëkk Sénégal wan na la di nga ne sëñ Tuuba doo dégg El Hadj Malick wax ko Cheikh Saabi yi du ko wax Abu Nuama du ko wax kenn du ko wax ci gaañu baax ñi kenn ku ci nekk koo ci wër seereel na sëñ bi bi ñeente amee nag iñaanante képp la jur moo waral yàqante jareeg waxante lu ñaaw yi te la ñuy wax dara du ci dëgg waaye mënoo wër menn mbindum mag ba gis te mu ŋàññi sëñ Tuuba amul menn mbindum sëñ Tuuba mooy gëstu ba fekk mu ŋàññi kenn ku baax mel na mag mu ŋàññi sëñ Tuubaa amul ku ko wax yaa ko kiriyeel sa bopp dugg ci sa ruq di parparloog seet looy monteeg looy wax waaye doo ne alaaji Maalik wax sëñ Tuubaa nangam li ma jot a gis ci moom ci seere teg ci sama bët ba di ko wax gis ko ci Abu Nuama ba di ko wax Cheikh Saadu bi ba di ko wax kenn ku ci wax wax wax ju jaarul sëñ Tuubaa amul boo demee ci irwaaw na dim fekk ko ca mu ne nu baaxil xadim da nga ko ci fekk karaamatu Cheikh Ahmadul Miski da ko ci fekk sëñ Tuubaa bi ñu ko yóbboo ci géej gi abu noama buy bukkunte njaasaan taalib bi sëñ tubaa daa ñëw nuyu ko mu ne ana ahmadou bamba mu a ko tubaab yi yóbbu nañ ko ci géej gi mu ne déedéet jaamu jeena yàlla fa ko soob dana del siwaat jaamu jeena yàlla fa ko soob dana del siwaat seex saxdoo bi bi sëñ tubaa jógee ci géej gi dana du ma ndokkeel sëñ tubaa waaye jëmmi lislaam lay ndokkeel ndax lislaam ci boppam moo am ndam sëñ tubaa bi muy dem ci géej gi seex saxdoo bi nee na daa mel ni xaalis bi muy ñibbisi nag mel ni wurus marjaan def jant bu tiim ñépp kon l'islam maa ngi lay ndokkeel am nga nam door na xallaba zamanu la yati yanna bi misli anisat yaminu ko yaa zamanu fa kafiri adduna boo giñee ne da nga andi ku mel ni sëñ Tuubaa kafaaraal ku mel ni sëñ Tuubaa du am alaaji Malik lu mu waxoon ca ngi ba ñuy tudd gaa yi baax ya boo demee ci baabu shahadat bi ma la ci rawaa na nadim ku kuñ tudd tudd keneen alaaji malik jekki-jekki gestu leen na leen ba ngeen dalee wax ba léegi de koo leen fi tudd ci gaa yu baax yi ku mën a doon am na bis mu réccu digganteem ak boromam ba mu des ahmadou bamba mësta def lu ko astaghfirullah di fekk négul bay mag door ne mel daa gane jamono mat sëkk toog na moom alaaji malik am ñu naan wirdu tija wirdu murid wii de nee nañ sëñ tubaa yonente beeg ko jox di ko wax ndax sëñ tubaa nee na wirdul maquuda bi waasita rasulaay salaa sallam yaqidatan la manaama ca gànnaar la ko rasulaay jox jàkkaarloo ñoom ñaar duy nelaw am ñu naan waaw suñ Tuubaa de nee na wirdam wi ah, yonent bi ko jox alaaji mari na nungu ngeen ne li cheikh yor rasulullah ko ko jox ñu ne waaw mu ne lu cheikh yor bu ko rasulullah joxee li sëñ Tuubaa yor rasulullah ko ko jox boo demee ca lettre ba mu bindul sëñ Maru Bëgg it lii la ca moom alaaji mari faalam yaa ma rubba adna man tadaqala bayni wa bayna axi ahmadou bamba fi alaqati liti baynana fa innahu wa in adaa taxaluq bi malik fa inna malik bari minu ma rubba sama mbokk mee ca tuubaa di ahmadou bamba sama mbokk mee di xaadimu te njaareem képp koo xam ne bëgg naa dox sama diggante moom ba yàq liñ siq maak moom doon ko sama taalibi man malik génn naa ci yow doo gis menn mag mu ñim bokk réew mi ak ñi ne ci bitim réew mi kenn ku ci nekk melawoo mam xam ngeen ne kooku ñu doon nettali ci irwaa unda di nga xam ne nee na fa mu la suunu ca gànnaar jekki-jekki rek yuuxu ca kaw dóor yi tànk bi bi muy wéq yeel bi daal di damm mu ne damaa gis bato yi war a yóbbu sëñ Tuubaa moom laa doon wéq far bata boobu sama ceen gi ceen gi dal ci sama tànk bi moo ko damm te sëñ Tuubaa bi muy dem ci géej gi am na ci biir ñi doon yanu saako yooyu ci port bi am na koo xam ne sëñ bi da ko moytu mooy moytu gim ko moytu nee na bu ko laaloon rek tukki bi géej gi fomm awliyaa ullah yi ni nga xamante ci seen biir ku ñuy wax ahmadu ibnul budd ca gànnaar moom lañ denc bi irul xayr moo yóbbante woon sëñ tubaa ne ko nuyul ma Cheikh Ahmad Tidiane Chérif bi ko sëñ tubaa gisee dane ko nee leen ko yonant bi nuyu na ko maamam Ahmad Tidiane Chérif nuyu na ko mag ñi concurrencé wuñ woon sëñ Tuubaa mayug yàlla du ñuy natt ci yii xam ngeen ne waxuma la def nit ab yonent xanaa moo gën a rëy def nañ sëñ Tuubaa luñ def ak yonent mu dee def na lu yonent luñ def sëñ Tuubaa deewut waaw Yaxya xar nañu ko dub yonent ana Useyr ana Zakariya bu kenn lu yàlla muy tub yonent du ko may kenn déedéet ana Seydina Xadir ak Seydina Muusa lu xew ci seen digganteeg leneen ak leneen inna alfadla bi yadi laa yuuti man yasha wala ala kulli cheyin qadir yafalu ma yasha faalu li ma yurid yaxtasu bi rahmati man yasha yàlla moom yëfam nee na ku ma neex jox la yàlla la neex mu def sëñ Tuubaa ni mel xam ngeen ne boole la ak nasaraan yu am doole am kattan samaani xijajin nga wéet ci àll kenn ku lay wéttali néewu fa kenn ku lay jàppale néewu fa nga ne ci seen biir di jihaad guddeeg bëccëg suba ak ngoon ba yàlla dellu si dara wukku la bu dul woon yàlla mënta am bu doon takki ndoom ma ñin dóori bal ñu daanu ay xàmba lañ daan boole takki béjjén te teewul tubaab yi dañ leen di dóori bal ñu faatu bu doon mën a jàng alxuraan la am na ñoon dul leen yóbbu yàlla nam ma wane mbiram te kat ma nam ma wane mbiram gi muy wane jaare ko ci Serigne Touba moo tax Serigne Touba bi ñëwee amul foo ko mën a jàpp dane lépp lay la rek lépp lay la rek bu ma wéetee mooma bu ma tumurankee mooma bu ma xiifee mooma lu ma daj ci coono mooma sama yaram bi bu ñu ko doon dagg cër benn par benn par benn bëgg rasulaay ma ko gënal bëgg rasulaay googu mu am it ba mu ñëwee ñëpp la ca xettali sëñ Tuubaa ñëw di di def ataasub fii ci këram la ko tàmbalee ñii sàmb la ñuy wuyoo mbooloo di leen raamal di jur di leen tudde di bay di leen jox ñii di wuyoo jóob ñii di wuyoo sekk ñii di wuyoo cuun ñii di wuyoo mbaay bokkut ak mbakke ak raam di leen jox sëñ Tuubaa dafa juste lim fi nekk kay mooy noo ko def mu def la ni dong lu waaye ñàkk ci sëñ bi nag bu ca sikk kenn sa boppa waaye lu waay bëgg ci moom te am pas-pas bu dëgër booy wuti ca moom def ko sëñ Tuubaa kenn dong la mënta négocier da Cheikh Mahamadou Lamine Baara waxoon fi llahi su shiddatin qaasil fuadi ala man lam yakun min jamil xalqi mumtasila sëñ Baara nee na sëñ de ak baaxam ak lewetam kenn ko xamut képp mooy koo xam ne nungu topp yàlla ku nungu la topp yàlla day mënoo xam lewetu sëñ Tuubaa mënoo xam baaxu sëñ Tuubaa waaye ku ne sa yàlla aw yiw la la ëmbal moom Cheikh bëgg yonent bee ko yóbbee bi mu nekkee ci géej gi maam Serigne Sidi Touré Ndoulo la ko nettali muy ci sayyidina maqdumuna Muhammad wa alihi wa sahbihi rijaalu samadi nee na ko booba yàgg naa ci bëgg Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ba bu ma nee domm kaasu café suukar si du saf bu ma naanee war nga suukar si du saf waaye yonent bi ma dikkee keroog nag wax ma baat bopp nag fàtte loon na ma coono yépp man suuxal liggéey ba sëñ bi nee na booba damaa egg ci géej gi ci bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dane sëñ Mahmoud kaay ma firi leen bayit wi sayyidina maqdumuna Muhammad wa alihi wa sahbihi rijaalu samadi na ko rijaalu samadi mooy ñu teewoon badar daan na sayidina maqdudaa muhammad wa alu ibaadu samadi na ko ibaadu samadi mooy malaayika yi teewoon badar daan na ko maqduumu naa gii ci digg bi laa leen bëgg a lijjantil nag na ko bi ma nekkee ci géej gi egg naa ci bëgg rusulaay ba bu ma naanee war ko du sukkar su saf bu ma naanee café sukkar su saf wa jaani bi kalimatin qad istaxraxil ma zahiran wa batina yonent bi dikk wax ma baat bopp man soo xool liggéey bi zahir ak batin lan la ma yonent bi wax ma ataytuka hadihi lmarra illa li ushrika ya qadimi bi annaka ahabu min saati nafsi jërëjëf yonent bi ñëw di ma joxar bi na ma ahmadou bamba sama yoonu tey wii li ma tax a ñëw mooy lenn képp di la xamal ne sa jëmm jooju moom laa gën a bëgg sama jëmm ji man ahmadou bamba man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa na lu ma daj ci tagg ko nag bëgg koo tax lu ma daj ci liggéeyal ko bëgg koo tax daxaani ila matxi nabi xobbu daatihi daxaani li iqdaami nabi xobbu daatihi dama bëgg jëmmi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gi ma ko bëgg moo ma yóbbe ma di ko tagg bëgg gi ma ko bëgg moo ma yóbbe ma di ko liggéeyal bëgg gi ma bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam moo ma waral coono bu dekk mu di ma rek ma di ko rek ñu ne bokk na ci bëgg yonent bi salaatu salaam ay mandargaam mooy jikko woo jikkoom doxii na may yow sa doxiin waxii na may yow sa waxiin jëfii na may yow sa ngir ngirëm nga teg sa tànk ba sëñ Tuubaa tànkam fenn fu wuteeg fu Rasuul ay teg tànkam bu dee biddaa moo ko gën a bañ ñëpp am na ku ma sa ñëw ne ko bu yàlla wéyee yonent bi wéy mu ne ko Ahmadu wéy te loolu li gën a yéeme waxtaan yi ma def dakaar bi mu jàllee dafa am kilifa gu mun Muntaxa di laaj na ko waaw coow li ci dëkk bi daa bari loolu ñu naan gànna gànna waxtaan wa ana nu ko doon waxtaane kooka génn wooma moom ak genn kilifa ñoom ñaar képp ak sëñ Muntaxa mu ne ko gànna de waxtaan wi génnul yàlla ak rasulullaay sëñ mu ne ko ginnaaw yàlla ak rasulullaay dara néew sëñ bi du mi ngi ci diggante yàlla ak rasulullaay daan na ndokk bi mu ko xamee mi ngi ci diggante yàlla ak rasulullaay dégg nga nee ginnaaw yàlla ak yonente dara néew fa sëñ bi néew fa sëñ baa ngi ci diggante yàlla ak rasulullaay ndaga loolu moo may tekkil ilaa ilahi la xad wasaltu wa an rasulullahi ma fasaltu maa ngi ci diggante yàlla ak rasulullah kon loolu loolu lay jàngale diggante yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi fi la sëñ Tuubaa doon baagante moo tax bi muy takk garaat lam yax fa kaw ni abdallahi xaadima nabi te ku garaatub lan lu may abdullahi mooy jaam bi yàlla gërëm ci mu jaamoo ko na mu bëgg wa xadimi rasuul yi ki liggéey rasulullaay ba rasulullaay def ko ni bëgg moo tax yàlla nomee ko na ko ni ma def rasulullaay ba mu jiitu mboolem ko def yonent laa la def nga jiitu kuy waliyu wa imaamul awliya wa huwa raisul asfiya wa waarisul lil anbiya wala atqiyal qudama boo demee ci ku ñuy wax Baaba bun Mahmoud ad-Daymaani Baaba bun Mahmoud ad-Daymaani benn naar la dana jàkk sëñ Tuubaa na ko cheikhul alal umumi min haadisin min huwa min qadimi dëgg dëgg dëgg bu sëriñ si dajee yaay seen sëriñ na ko ñëway nag ca lañ bokk ak ñi fi ne ak ñi ñëwagul yaay seen sëriñ sëñ Tuubaa nee na bu dee lisaanul arab te loolu maa ci teg samay gët ñu génneel ma mbindam loxoom mu wóor ma ma gisal ko sama bopp mu ne kataballahu tabaraka wa taala ana katibi asiru ahabahullah mahabbatan lam yusbiq ila misliha wala yusbiq ila misliha sëñ Moustapha xasaay dama ko woon te lii ma sol juróom la ci dajale jox ma ko won ma mindi sëñ Tuubaa yu leer ca laa yéegee ne man duxuma dama doon taxawaalu dafa woon naa ne yéeg naa mais ndeke yéeguma baa gisee loola laa xam ne yéeguma damay door a tàmbali yéeguma ndake man am yambar laa ci ginnaaw laa nekkoon la ma gis Ahmadu waxal ko boppam ahabahu llah mahabatan lam yusbiq ila misliha wala yusbiq ila misliha sëñ Tuubaa nee na yàlla ni ma bëggee mësu koo bëggee nit mësu koo bëggee nit te duutu ko bëggee nit mahab yëmu ca kallamahu bi lis kallamani bi lisaani arabi takliman lam yusbiq ila mislaha wala yusbiq ila mislaha nee na làmmiñu arab yàlla waxee na ceeg man noonu su koo waxee kenn du ko waxee kenn waaye asama nii min al mawti kama asama ahlul jannati min al mawti noonu la ma aare ci faatu mooy jóge fi wu kenn du tudd tudd comme ni mu aare waa àjjana ci faatu noonu la ma aare man Serigne Touba feeg yàllaa ngi fi maa ngi fi moo waral kër sañ Touba kontug sëñ Touba nangam sëñ Touba di ko ñaan mu di la may nga di ko woo mu di la wusu ku fi nekk du ko man ku sa liñ dogg doo ko man doo am kër kër keneen la ñuy wax te mboolem kër goo ko jox gis nga kër gii murit tiijaan ab xaadir ab laayin kuy wax ashadu an laa ilaha am nga ci wàll fii lakka manazili wa mawatini yaa moom samay dëkk moom sama kër yaa nabiyu yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ca la yem wa mawaadiin ak samay wàcc yow daal jël naa samay kër yëpp kër ga ca njeng ga ca Europe ga ca Asie ga ca Australie kër yëpp maa ko Mahmoud jox naa la ko yow Rasulullah kon ko woon kër Sëñ Tuubaa kër Rasulullah nga woon ginnaaw kër Rasulullah nag ko woon ginnaaw sa kër bàyyi nga jëm baa kër bàyyi diw kër Rasulullah gën a assuré mbind ma di lakka manaasiri wa mawaati yaa moom samay kër ya moom sama lépp samay kër jox naa la kër gu sëñ Tuubaa moomal boppam amut moo tax foo dem ci àdduna kër sañ Tuubaa bu nekk la Cheikh Mahamadul Murtala waxoon mooy kërug lislaam sëñ Tuubaa lu mu woote lislaam la amul benn patrimoine bu muy donn moomal ko boppam ñu naan lii sëñ Tuubaa koy laal waaye sëñ Tuubaa foo fekk alalam di jullit yaa ko moom léppam alayhi salaatu salaam la ko jox waaye nag loolee mu loolee ay këram néewoon ngir rasuulullaahi sallallaahu alayhi yàlla fay na ko kan moo ëppi kër sëñ Tuubaa ci kaw suuf kan moo ëppi kër sëñ Tuubaa ci kaw suuf wëral adduna bi yépp foo dem fekk fa kër Cheikhul Khadim te moo ne moom këram gi mu amoon waaye waaye waaye waaye ko xamul mooy du Leclerc moo nekkoon nooru Louga moo interdit woon Touba 1895 ku fa dëkk Merlin moo nekkoon Ndar gis nga moom moomu ñuy wax waroon nañu wax histoire bi ko indi Afrique Moutte waroon nañ ko nettali gannaaw dañuy gëstu gis nga day am la Moutte ci boppam ak saay-saay la woon bu bon la xewoon ca bureau bureau ca France daw gam doon daw doon laqatu ak kam doon nëbb ci armuwaal ba te kilifa gu dugg ci armuwaal dugg ci sa bureau ba armuwaal ba daanu mu gis ko looloo ko fi indi ay yëf la loolu du nu concerné man li ma mënta dégg mooy ku bëgg a waxi asif dong te doo wax mbindum sëñ tubaa ñaar bu ndee xeex wenn lay du paq saa yoonee tubaab bi nee neel sëñ Tuubaa nee ku mënul na sëñ Tuubaa nee yàlla nee rasulaay nee lu may tubaab bi nee da ngaa war a wàññi say wax da nga war a wàññi say wax ah boo boo nee jeewal kay archivé ko na jeewal 10 août 1895 onze heures nangam da nga caa war a teg ay yesa minni laahu inda jeewali iblisa isnadatihu bi yaawali inda lesi maha liqaa jeewali lahu nidaan muuxinan bi yaawali billahi faaraqtu nasaara jeewali wa xayrim xatan bila tanawuli naajeytuhu bi yaa nasiru yaawali kafaytani iblisa inda jeewali ay rek na tubaab bi ne sept tonnes cinq cent ana laysal bir ana laysal bir ana dalailul xayraat ana lu waral bi mu sànni jaalibatul maraaxibi ana nangam ana nangam ana asiru maa al abraari hiina asiru wa danna al ida anni hunaka asiru masiri maa al axyaari lillahi bi nabi gis nga boo ne tubaab bi nee da nga naan ahmadu nee waaye noonu bun duma fët la joggi la nappaaja la baal la da nga yegg naan béréb sàngam lañ ma dóor léegi-léegi ñaari mbër yu daje képp boo ne ko noo encaissé coup bi komba bi bi mu amee noo encaissé coup bi danaa la noo xaw na ma touché nii rek fekk dañ ko ne ko paccu ab korosé ba mu bëgg a dee ñaari noo ab noon du xeex ak nit ba noppi di ko nettali tubaab bi xam nga ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li mu dajeeg sëñ Tuubaa du ko wax ko nettali tubaab bi day cuus waaye du nettali li mu dajeeg sëñ Tuubaa li ci mën a wax dong la ci wax waaye am na ci loo xam ne ngi mu ko ne waaye sëñ Tuubaa koy nettali li boppam nee na diggante Libreville diggante Mayomba diggante Lembarna nee na Lembarna daj naa fa loo xam ne lu dul ruuguy génn deesu ko lu dul ruugu génn ci yaram loolu ko gën a wet nee na daj naa fa loo xam ne laa yaqillu ibrasuha nett li ko sax wur waaye nee na mboolem ca méthode yi muy pour santé lu ma fa mas a dal li ma ko fàtte lu mooy tagg Rasulaay ansaniya imtidaax nat bin atadin jumlata ma laqaytu ande matadi moo tax am na bis mu ñëw njëriñ di nettali boppam yoonu géej gi naan bi sàngam nangam am na bi sàngam nangam am na bi sàngam nangam mel na mag yuuxu na ko mbakke loolu metti ne mu ne ko waaye maa ngi muslu ci ñàkkoon ngay am maa ngi muslu ci ñakkoon ngay am ngi muslu ci ñàkkoon ngay am kon sëñ Tuuba lim waxal boppam dafa leer dem naa ba ñëw topp leen sama móor defuma lu rusloo sama taalibe defuma lu ko yóbbe gàcc waat naa wàcc naa wàccaale ku ma yaakaar mu su koo taasal mu ne su koo taqal mu ne ko defut lees di defaat sëñ Tuubaa def lu ñuy defaat lu mu def moom doo nga ko mas a def ba mu ko defee ba nopp keneen du ko def te li muy def ñépp la ko jëm xoola ki naan xafiisu sun ummata xayral mursali an alladina kafaru bi rusuli yow yàlla man aar nga ma ma nopp waaye xeetu rusulaay na nga leen aar ci kàccoor yi nga xam ne gëmuñu rusulaay ci liggéey rasulaay sallallahu alayhi waaye ku ko seere sëñ tubaab nee na ba ma nekkee ci géej ga ñaaree sama seere mooy raqib ak atit néew tubaab bee ma seere ñaari malaaka ñoo ma seere kii moo tudd raqib kii moo tudd atiid loolu muy misaal tey jii ndax tubaab yi danañ bind ci seen archive ne ñoom ñoom danañ bind seen archive ne bañ gisee métal ahlu badrin googee bañ ko gisee te dawtii danañ ko bind te loolu suñ tubaab ko nett sëñ Moulay Bousso te loolu moo indi ilaa nasrina xasaarahuma quyulim wa xaafal aqida minhum maalu ila salam tubaab bi jàkkaarloo nañu ak suñ tubaab ba badrin di wàcc ñu tiit di pat-pati mooy ilaa nasana xasaaru maa xuyulihim daw ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko ñii ñana sëñ bi ne sama ñoña ñu ne ko foo àndee ak mu ne ba ma àndee yéen ñu ne ko baa doo xeex ak nun sëñ bi ne ab surga fi muy xëy tey la xam waaye xëy fi muy xëy ëllëg ñu ne ko baa doo ko wax mu ne boo leen ko waxut du ko wax ab tubaab ba jóge Paris ñëw Sénégal gii ñu ne sëñ Tuubaa ngi njëréem mu dem njëréem na ko maa bokk ca ña gisoon sa métal ga sëñ Tuubaa ne ko ginnaaw yaa ko wax danaa ko wax netti ko sëñ Moulay Bousso radiyallahu taala anhu sëñ Moulay sëñ Tuubaa nee na ko am na bis ba mu nekkatati yow ma sabti ànd ak galwa bax di jihaal yu firaqil balwa yonente bi na ma waajal te takk bagage da ngay dellu ci réew ma liggéey bi jeex na sëñ Tuubaa ne may takk bagage yi tubaab yi di ma ree ma di leen ree nee tubaab yaa ngi may ree ngir bagage yi di leen ñoo ko yenu te xamuñu ne ñoo ko nar a yenu te ndax lañ gis ba ñoo daw ñëw ci sëñ bi lañ ko laaj mu tontu ba yàgg ñu ne ko waaw foo bëgg la fa yóbbul bagaas yi ñoom ñoo ko yanul bagage yi ñoom tubaab yi waaye léegi tubaab yi ndax mutte mii ñuy wax kere bi ko sëñ tubaab xindi ko ci biram ndar na ko yaa wooloon ba sentir gi dagg tëb mu yàq yére yi ndax danañ ko bindaale ah waaye sëñ bi dégg nan nañ bàyyi niir kayiti kese naan archive national nee na te doone sëñ tubaab nee na kat tàcca la sax kat takki weer di wàccee di yër mbindum kese képp da doo wax benn baatub sëñ tubaab dara laa wax sëñ tubaab ngay jëkk gëstu ba noppi xam luñ ko sosal ak luñ ko waxal ak lu mu ba noppi nga door a lijjanti lan fi ne bari na kuy tërtër yu nekk ci yoon wii di waxi archive boo ne ko woon sëñ Tuba ayee sa min laa inda jeewal ba mu ko bindee ñaari bayit ya rotoon te Sidi Sarr ñëw ca njéere mu door a feeñ mu doon xamu ko lay wax te am na code bu ci nekk ba tax loolu am bi ko tubaab bi woo muy bind asiru fan la tolloon ci wan bayit la yemoon bi ko tubaab bi woo bi mu jógee jeewal jëm kokki xasida gum doon taalif xasida yi ñuy jaxase naan gii fii la ko taalif gii la ko taalif sëñ Tuba nee na bi mu bindee jaalibatu maraaxi bi dafa ko def fas tes ndax boobu nee na jàmmaroon na ma ak noonu bi ñor seeni kënu ajaanil qahaar min jumlatil ida wa xaadiduma armahum wal madafia sampe nee ma def jaalibatu xool ba xam danaa mën a xeex ak ñoom sànni ko ci géej gi ne ba ko yàlla nangoon a dem del siwaat ma rëcc Muhammadul Jasuli ab soldat a ko for bu tudd Moussa am at am na ko ci géej gi mbind mi yëquwul dara sikku ci dara réerul sëñ Tuubaa na test bi mën na teg ko def adaayul fadaayil bi mu defee addaa fadaayil nee na booba yegg naa ci tubaab bi ngay xeex ak nit ba seeni gànnaay jeex amatuñ fetal amatuñ jaasi yoratuñ paaka yoratuñu yat mu des loxo loxo ma rëgët leen ci xasida gudd lay set biir sol leen ci mel ni mbedd yaa ayyuhal yahuudu wa nasaara baarastumul muntaqimul jabaara moo tax mu ne yamini alal ahday sayful muhannadun fa man lam yusalim yamru si ba ma nekk ci seen biir nday joor bay raw jëesi jun bocc moom laa leen di bàcc ku ma jàmmalul man ahmadu da dee da am gàcce keroog baa leen dàqee ba ni wuru daw la ma yàlla ne tàllal la ma tàllal mu ne si baa musawi islami fiha fa man aba mu couché fi dula usul mal xisi moo leen kuy wax asadu la ilaha illa ana muhammadu rasulullah jël naa am gëstu waaye doo xam ngeen wet da koy boole mu ñor la julli géej gii biñ koy dingat boo demoon Bordeaux fekk ko ci li ko confirmé mooy tubaab yi nee bi sëñ bi kabaree ci géej gi mboolem luñ ci biir day yëkkati boppam bu sëñ bi rukkoo mu sëgg bu sëñ bi su jotee mu nuur bu sëñ bi siggee mu fitti kon fii ñu toll ci jamono l'islam toll fi sëñ Tuubaa mooy mbër mi ngemb koo tagg ko wàññiwu dara am njàngum kese nag te amub yar amul njariñ te ku topp tele yeeg rajo yi ak réseaux sociaux yii da wax ba ne pakk sa kilifa ci béréb te doo fa mën a jóg du fa mën a jóg billaahi ku muy moytuwut micro moytuloo caméra yii di la dégg ngay jaayut estaara ko ndaanaan naan lu ma neex wax danga wax loolu boo ñibbee doo nelaw te wat waat naa ko ci yàlla adduna bépp mën maase woon di waxtaan ci sëñ Touba mënuñu koo waxal lum waxut mënuñu koo waxal lum defut lam def xamuñu ko lam wax xamuñu ko dañ koy coppati di wax tuuti la te borom daarul waxti maam Thierno daana wax ne borom daaru daan wax ne baaxam gii loolu sëñ Modou sëñ Moustapha borom daaru daana wax ne baaxu sëñ bii ku ko yàlla nëbb ba ñuy waxtaane sa gog amul ku mën a tee ñu yar caw la yari bàmmeel ku yàlla nëbb baaxam gii ku yàlla na nëbb baaxam kii ba ñuy waxtaane sa gog amul ku la mën a teem yari bàmmeel moo tax ñu ko xam-xam na waxtuñ ko daan tudd du ko ñuy werantee sëñ mu daaw balla mu baax ma trois heures de matin la daan waxtaane sëñ Tuubaa ndaayaan day bàyyi ba guddi suuf sedd guy mu jàpp jiw lu benn na naan waxtaane suñu waa ji nag boo ko tuddee ci bëccëg gi ñu di ko ruube loolu la sëñ Moodu daan wax dañ waxtaane suñu waa ji guddi la ko sëñ mu daaw balla daan waxtaane ngir xam gi ñuy xam sëriñ bi fi koy teg nan na dann sëñ bi te moytu werante yi te jéem a ñàkku jot gis nga temps bi nga naree werante demal jàng ko xasida baa nga sikare ji ko baa nga waxee ko jërëjëf sëñ Tuubaa baa nga liggéeye ko baa nga jàpp sa njàmbur te ñu bàyyi xel ne bari na kuy xasub murit baa kuy xasub tiijaan du jullit safar réseaux sociaux bi mat naa teey de léegi la nga gis ku def benn wokaalam boo xam ne waaye ku ngemekat da ngay génne sa xar kanam génne sa adresse na maa wax nangam waaye nit ku jekki-jekki saagab murit ñu ne déggal tiijaan yaa ngi saaga murit yi wala tiijaan murit ñu jekki-jekki saagab murit nga dégg ñu ne tiijaan yaa ngi saaga murit yi loolu kenn wuru ci engagé kenn ba ci jurum noonoo li waaye di wax bu dee dëgg ci moom na ne fang am nañu diine ñurut am na ñoo xam ne tariqa suufiya yi ni mel neexu leen bu sañoon kenn du topp kenn fi ne am na ñoo xam ne tiijaan neexu leen xaadir neexu leen murit neexu leen ndax bëgguñu ko gëm kenn ki bëgg a dunde financement nag ràccub sikki nag jàlla bi bu xat képp booy dox di xatal jàkk kooku diine l'islam ñuru intéressé wu ñoo ñen mën nañoo xàmmee ci biir yëf yi ñooñu buñ sañoon benn sëriñ du digle ñu def benn sëriñ du tere ñu bàyyi ndax nunguwun ko gëm kenn nunguwun ko jiitu kenn nunguwun genn kilifaam te adduna bu amul kilifa yàqu wallahi adduna bu amul kilifa yàqu te kat bari na ku lay dégager loo xam ne da koy encaissé fi ne am na ko bañ nga sukkalub sëriñ am na ko bañ nga raamalub sëriñ te bëgg nga di ko sukkal bëgg nga di ko raamal mënta lekk addee waaye loo ko sarax mu jël ndax boo indee ca fa mu nekk sukkar ak kafe na ko sukkaru koor gi mu ne fa tabarakallah te boo nee addiyee mu ne daa araam te boo ko saraxee mu jël addiyee gën a foor fop ab sarax ni ki ni jox addiyee gën rek ki ni sarax ne lan wutee ñoom ñaar bu boobaa nag ku am lu ko doy da cay jàpp sëñ Tuba nee na woon loolu démb ndeysaan maa ngi koy gëstuwaat sëñ Tuba nee na woon jundullahil ghalibin yooyu muy wax naan chakarta ni ànda jamiha jundika yaa xayra jaayin xat ma ko so indaka ak chakari li jamilu inda jundi al ghalibina niama maala abdihi ndeke sëñ Tuba tàmbali gu dënale tàmbali gu dënale nee na jundullahil ghalibina yi ku ma bëgg te liggéeyal ma ñoo may ñoo man dënaleegu ma ëllëg lay doon ëllëg kon dënaleegut nee na dënaleegut de nee na dënaleegut min xaaru asuuri googu Abdoulaye Salim al Anbali waxoon ne loo seen ci àdduna ci Sëñ Tuubaa muy riir mi ngi mel ni sàqum pukk la ca ruus am picc sàq ca sapp ca aw aw sàllam boo jógul sàq ma ba dara am na waxoon maam Cerno na ko loo seen ci àdduna rek cin li ci boppam lañ ubbi cóoloo li génn waaye ñam ma sotteegut junniy ñay la yomal xiyaam lañ koy séddale te liñ gis fii doy na sëkk bu fi yemoon nit baax na nii mu nii mu toll nii bu fi yemoon nit baax na xam nga tax bu fi yemoon baax na waxuma am xaalis yi de waxuma am wata yi de waxuma am kër yi de waaye ndaw lu waroon a toll ci def lu bon waroon a toll ci wax lu ñaaw gën a bëgg lislaam gën a bëggug jub di saytu lu baax di ca dox doy na koo fi ma sa gis muy rayante lii la bëggoon yonent bi li ko li mu bëggoon lépp mooy nit ñi jub tey ji ndaw loo seen ma nga gàddu dollam ma nga yoru xasidaam ma ngay liggéey yi ma ngay naafila guddi ma ngay jàng xasiida ma ngay jàng alxuraan ku yàlla ma sa yónni nit ñi mel nii la bëgg xudan dong jub loolu dong doyan na te sëñ Tuubaa bii di ayaali bilaay bu kay sama njaboot na ñëpp jub ci lu dul ñuy jooy buñ leen not buñ leen rey bu terroriste am bu dara am nañ tege ci yoon tey jii bari na koo xam ne fi mu toll ren tollu fi woon daaw néew bi mu am tey ci yéeg ci yàlla ak yéeg ci sëñ bi la koy yëgal mooy xasaayid ndax tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan bilaa xalwati wallaahu abwaaka ma agna loolu nag doyoon na xol bi la yàlla jox mu set wicc nga tàbbal ci sañ Tuubaa doy na waaye murit du am jot yaakaar naa saa yoo xëyee suba ba ngoon mukk la wenn bayit perte nga perte nga yiw woo xam ne xamoo nu mu toll loolu noo ko bëgg a jëme ci werante ak waxante lu ñaaw ak saagante ak xasante sëñ tubaab mii sëñ tubaab ñëpp nañ bàyyi buñ ko tuddee man li ma gën a yéem mooy tele boo jàpp ñi ngi naan waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu nañ bennoo ne ji jann la mag ñi liñ liggéeyoon kenn mënu koo yàq waaye saa yoo toogee ci télé ne Sëñ Tuubaa fi gën ku ne génn léegi léegi nan lañ bëggee ne benn lañ te kenn du jiitu bit kenn na koy dugal wax naa ko ba tey bit kenn na koy dugal lu mat si bi seere seere kenn nay dugal mat kenn nay dugal waaye léegi nag bu kenn dugalee ñu ñëw tapp tappal ko waaw góor yaa nu may ndam ndam li ci équipe bi lay dellu dañ naan équipe sàngam gañe nañ ndax ki dóor mu dal ci baar bi ki rafet occasion am ki def contre son camp kii doon tiire simet yaali góol bi yow sa xol daa war a set ndam lee ci am solo lañ waaye boo nee match bi neex na passante yi jekki na entraîneur bi ni mu classé baax na mais meilleur joueur bi ni mu dugale bit bi ñu ne non football bi moom ñëpp bi kenn na football bi ñëpp mais bit bi kenn na léegi nuñ bëgg a ànde bëgg a bennoo te duñ tudd baaxu kenn bëgg def suñuy bopp ay noon bëgg a yàq suñu diggante boo ne sëñ Tuubaa ñu ne nangam di concurrence fi ne ñi ci gën a danger ci gën te doy waar te gën cee rëy billaahi wallaahi wa taalaahi taalibe boo fekk muy diingat moo xam mu di tiijaan moo xam mu di murit kër sëriñ ba mu bokk moo ci gën a néew addi yàqkat yi mbëndeelu képp amuñu fu jëm amuñu boobu tànk man li ma war a wax ci sëñ Tuubaa ni mu feesee sama bopp bii léegi la nga tëdd trois heures vingt di nelaw ak a jooyee ak yeew moo nooy lijjantee yëfi keneen jigéen sañ naa yàkkale waaye du njaaloo boo toggee ku ne man nga ko sedd ñu ne di wa ko baax waaye nag guddi jot nga tëdd ci yeneen néeg naan kaay leen tëddee ma ndax sama dëkkandoo bi seeni xarit la déedéet jigéen day yàkkale waaye du tëraani nag feneen xaw ma dégg ngeen li ma leen wax yooyu lañ naan tegg ci suuf bàyyi werante yi sëñ Tuubaa lim def te defu ko dane fang léegi sëñ Tuubaa jeewal ku ne dëkk ba nga jóge woon ba nga wujj am na am nay dëkk te kenn tudd ci benn sëñ Tuubaa doo jóge trace bee ñu ne jeewal ndarit moom doo nga demu fa woon dem bari na moo dem ci géej gi julli géej gi doo dégg ko def moo ne war ngaa bëgg sëñ Tuubaa yow bu dee jullee la ñor li ngay war a bëgg sëñ Tuubaa mooy lu tax sëñ Tuubaa yàlla jaral ko ba mu cëppeelu ci géej gi di julli loolu fii ne da nga war a bëgg sëñ Tuubaa du xar baax de defewu ko xar baax waaye jom ja ak ngor ga jomi sëriñ Tuubaa wecci na diine jom ja ak ngor ga moo ko tax a sànni deram ci géej koo xam ne ci sa ñeent fukki at nga mujj a toog ci sa njaboot di waxtaan ak ñoom di ndoo reetaanandoo fanweeri at ak juróom yoo xam ne ci loxoy nasaraan yi nga nekk jumaay njéeréem ji noppali tu julli wu ci di jàkkaarloog jumaa ji moom ko ba noppi sëñ sa sëñ ci julli ji ajjuma lépp di diine xëccoo wut alal xëccoo dëkk bañ na ko mu mu am poste du ko sol kenn du ne gaal gi li sëñ Tuubaa dañ denc alal loo ko tàllal lu mu bari bari sëñ Tuubaa na joxeel ida maxtawat yow man xanaatiru ka fii taqasama alaafuuna yow maxtiba yi lu tege ci tëng yi mu séddale moo tax ma Massamba nee na walaw daral xalqa ilmal xaybi min ka la kaana kulluhum fi lxalaa wal fadli yàlla cay bu la nit ñi xamoon yow sëñ Tuubaa kenn duutu ñàkk kenn duutu soofe kenn duutu sonn ñéppay ne ca kaw waaye bañ la réerée nag la yam bu nit ñi xamoon li fi yow walaw daral xalqa la wax sañ-sañi yàlla yi am moo ci tabal baabul muridiin mi jaaxal gaañ fi ne koo dégg muy logg-loggal Cheikh Ibrahima tëj boppam ndax jàpp nañ julli moom ku ko defut sawara nga jëm moom loolu nag problème bu ko gën a rëy amul moom lu garaaw la nag tëj na bopp nag tëj na bopp de julli koor natt asaka aj makka ndake contrat la contrat la Cheikh Ibra daa baatin ne de Cheikh baatin yooyu boo ko dene da sax a jut ci bopp moo tax léegi la nga dégg nit ko naan noo man moom xese yi mënuma ko supporter nit lu mu wax day wax mbindam est-ce que yow te kaawilib alxuraan yi sa turu ndey ak sa turu bàyyi nga kaamil ndax bind nañ sa ndey ak sa baay ginnaaw lu waay wax dañ ko bind léegi fu ñu bind na yow mii sa yaay ak sa baay ci lañ bokk ci kaamil bi lañ bokk léegi kon ñoom bokkuñu kenn bindu leen dañ bàyyi loolu yooyu <laughs> lépp luñ bind daa am lépp amul luñ bind yàlla am na lu muy yekki wàllu jaamam kenn du ko bind Cheikh Ibrahima Fall daa am bis daa am bis mu tawat ci njëriñam. sëñ Touba yónne li ngay xamee ne seex Ibra ku mat a mandu la billaahi yowmal xiyaam bari na ñuy fudd seen digg Cheikh Ibra Fall lay tax Cheikh Ibrahima Fall tawat sëñ Touba yónnee ci moom ki mu yónni ñëw nuyoo ci kees gu njëkk gi kenn fayu ko keesu ñaareel kenn fayu ñetteelu kees gi seex Ibra ne ko ah doom bismillah mu ñëw ne ko sëñ Bamba la jox saafara yi Cheikh Ibra naan ko daal di diwoo daanaa ah, doom wér naa sëñ Bamba faj na ma mu ne ko maa ngi dem mu ne ko négal ma ñëw Cheikh Ibra dugg ci biir génn koccub xaalis bi def xaalis su ngurdu ba noppi jox ko ab leetar na ko joxal ma ko sëñ Bamba kooku bi mu génnee daan na leetar bu sëñ Cheikh Ibra Fall daka day bind sëñ Bamba leetar naa ko xool xool leetar fekk ci Fatiha mu ne ah man de Ibra jaaxal na ma Fatiha nu ñu koy defee leetar bi mu ñëwee yët ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko ana Ibrahima mu ne ah Mbàkke ma nga fa na faj nga ko wér na mu ne ana bataaxal bi mu la joxoon gis nga ko xam nga sëñ bi xam na ne xool na ko mu ne ko gis nga ko waaw ah, mu ne ko ji de man moom ci jaaxal sëñ Tuubaa ko fa këram moom kër Cheikh la daa am ñu fa war a dem kër toll fa dem kër fii fi sama kër am fi ñu war a jël soxna leetar bii mu la yónnee mooy dane ñi fi sama kër nañ leen jox ña fa këram can gi mooy li ci mbuus gi can gi mooy li ci mbuus gi maa ngi jégalu de lii dafa daw yaram amuñu lu dul seexul xadim yaakaaruñu lu dul seexul xadim ngan na di suñ gan jóge ba tuubaa di waxtaan ci seexul xadim dëppee ko ngeen dégg mu tudd ci maam Cheikh Ibrahima Fall di baabul muridina kon ñu ngi ñaan képp ku yaakaar seexul xadim na ñëw teral ko fii addee seexul xadim yéen waa Louga kat ku ne xam ne am nga fu ngeen toll seexul xadim maa ngi koy ñaan ku ko def yàlla na Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké faj te aajo biir ak biti képp ku jóg teral ko yàlla na Cheikhul Khadim faj te aajo biir ak biti yàlla na nga fi yàgg ci amiin amiin yàlla na nga fi ci amiin amiin jërëjëf jërëjëf sëñ ah jërëjëf non. Cheikh Ibra Fall daana wax ne ni ma waa barsàq xame bu ma ne waa adduna xame woon lu waay liggéey jox ma loolu la Cheikh Ibra daan wax daana wax ne ni ma waa barsàq xame bu ma ne waa adduna xame woon jox ma daana wax ne xam li yàlla wax xam li yàlla bëgg gën yàlla bëgg mooy ko liggéeyal sëñ Bamba loolu la Cheikh Ibrahima Fall daan wax xam li yàlla wax xam li yàlla bëgg ko gën li yàlla bëgg mooy ko sëñ Bamba loolu la Cheikh Ibrahima Fall Babou daan wax li ko maam Samba Jaara wax nag inna suyuxa waat baax suyuxi maa ñooy say jaraaf nga di chef yaaram bi naam Fall kon sëriñ si ak dongay sëriñ si yow yaay seen sëriñ Cheikh Ibra raw nag maasam te kenn du ko jot Bamba ko semp mu raw yaaram bi naam Fall kon jëmmi sëñ Touba moo sempi Cheikh Ibrahima Fall sànni ko mu raw kon jiitu googu mu jiitu ak melo yu yi ko suñ borom jagleel mbiram ku ca xamul dara nang ca màndu am na ku ma a wax sëñ Tuubaa na ko ni nga fonke diine julleeg woor te Ibra Fall du julli nag lu ko waral mu ne ko bàyyil jàmboor bàyyil jàmboor Ibra li ko dal ñàkk fonk diine tegu ko bàyyil jàmboor bàyyil jàmboor li ko dal ñàkk fonk diine tegu ko ko te kat lislaam jàngkat yi nee nan bokk na ci liy rafetal lislaam yi nit ki génn ci lu yoonam nekkul sëñ mahamadan koso mu baax ma moom borom daaru mu mandu ma am na ko ko ma sa laaj ne ko waaw Cheikh Ibra Fall mi du julli nag mu ne ko ah ndax yowmal xiyaam yàlla da woo woo sañ Tuubaa woo Cheikh Ibra di la ca laaj dara mu ne ko déedéet mu ne ko mandu ci kon moo tax ma ne yàkkub jàmboor bu sa biir dawee da ngaa waane sama yàkk bi wex na kaani rek ngay siy joog sa biir di daw waane rek la kon nañ mandu ci Cheikh Ibrahima mbiram sëñ Tuubaa mi moomu yoonam man na ko accepté nangul na ko te bi mu nekkee ci géej gi am na ku ñëw ndar dem maa yomba fekk fa sëñ bi sëñ bi ne ko ana foo jógee mu ne ko ndar ne ko ndax xam nga Ibrahima Fall mu ne ko waaw mu ne ko nee ko sëb sëriñ nuyu na la kon sëñ bi moom nangu na di ab sëriñam kon nañ ci màndu da ngeen ma bal àq yéen ñëpp maa ngi leen di bal àq jataay bi yàlla bu muy sunu mujjug jataay yàlla na nu ci yàgg daje sëñ Mbakke Mbóoj ñoo ngi lay jaajëfal bu baax di la gërëm sëñ xaadim Seck noo ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jataay bi mat na lool yàlla na yàlla mottali liggéey bi te boole nu defal tawféex boole nu defal ndimbal sëñ raat lii day yombul lii yombul waaye noo ngi sant Baye Mor sant mbokkam yi nga xam ne ay rakkam lañ ak ñii di ay wëllëreem di léppam sëriñ Chouaïbou noo ngi lay nuyu baax sàmm kilifa gu baax la sunu xarit la sëñ Ablaye Cissé moom sëñ Fallou moom Cheikh Moustapha Mbacké Fadilou sëñ Ablaye Bichiri noo ngi lay sant bu baax di la gërëm fedd li li dox sunu diggante muy kóllëre yàlla na nu ko yàlla sàmmal ci barkeb xaadim rasul alaaji ayuba sant nañ bu baax a baax noo ngi gërëm ñëpp nangeen ngeen nu bal ak ci jataay bi sëñ Ngouda jaañ ñoo ngi koy nuyu ko gërëm bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf sëñ Gana alhamdulilahi rabbil alamina jërëjëf sëñ Touba jaaraama Cheikh Ibra ndax luñ doon njort ak di ko bëgg yàlla dimbili nañu ci kattanuk sëñ Touba ba am na nu kawee suñ njort sëñ Gana jërëjëf sëñ gànn jërëjëf waaw day wax ni Aboubacry Dia suñ mbokkum taalibe mi wàññi woon bu dimanche ci ngoon lañ koy defal ñaan fii ci seen kër kooku moom ñu ngi ciy sàkk mbooleem taali mbooleem jullit yi yëpp rawatina taalibe yi ndax murit saadix la woon ku fekkee dencam ba keroog xam loola sëñ gànn jërëjëf yàlla yàlla guddal sa fan sama nijaay baara ak sama mbay si sant nañ leen bu baax ndax dañoo bëggoon nijaay baara dalal sëñ gànna waaye daa xaw a yéex a agsi ne loolu moo doon suñu yéene ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi lépp rafet na mbokk yi ak xarit yeeg wëllëre yi du ma tudd kii bàyyi kii sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp lii nag sëñ tubaa rek ko man lii sëñ tubaa rek ko man moo ko neex mu def nu ko kon nag dañ ko koy sante wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf jëre ngeen jëf yàlla bu suñ mujjub daje képp ku fi ñëw luy sa soxla mbaa sa yitte mbaa sa aajo yaa ko xam ci sa xol na la ko yàlla suñ borom defal ku mën a doon li nga bëgg yaa ko xam na la ko yàlla defal sant nañ ñëpp sëñ Touba mi am fay daal bàyyi nañ leen ak moom wasalaamaaleykum wa rahmatullah barke borom Touba. waaw ah, jërë ngeen jëf kon rak sax wax na ko muy Aboubacrin ja dañ koy dolli ak ñaan dimanche fédération bi nag. day woote fédération bu ñoom woowuñu seen bopp day woote murit yëpp lañuy woo képp koo xam ni daal taalibe nga koo xam ne nii daal Aboubacar amoon na wëllëre ak yow ñi ngi lay woo bu dimanche bu tàkkusaanee ca buntu kër baayam foofu lañuy def drus xasida ak jàng alxuraan karim ku ko dégg tamit te mënoo ñëw boo mënee jàng fa nga nekk kaamilu alxuraan wala nga drus xasida yónnee ko ko kon tamit ndigal mi ngi noonu kon bu dimanche na ñëpp ñëw incha allah buntu kër. incha allah Aboubacar Diagne moom lay ñaanal fédération ma ñoom loolu ñoo ko ñaanal ànd ko mbokk taalibe yëpp yaa jaaral yoon mi ngi nii yore ko Touba ci kanam ku ci bëgg a wéy ñëw ñaata yaa ngi nii am na ñaar comme ni ma la waxee woon carte membre cinq mille la am na ko ñaata yu bëri waaw kon ñu ngi ñëw ko ñaata yaa ngeen si quoi yaa ngeen asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di yëgalaat àllarba mars bi ñuy def garage Touba dox jëm si kaar ba ñu ngi leen koy fàttali mbokk taalibe yi boo ko jëlee bi mars bi nga xam ne moom la ñuy def àllarba ñu ngi leen koy fàttali nga xam ne moom la ci ñu ko war a Touba ñu ngi leen ñoo nekkoon ci wàllu renseignement bu gën a